salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ba léegi nag ñoo ngi ci saison 4 bi ci premier partie bi maanaam développement tey moo nekk suñu sixième épisode alors épisode bi nag dafay spécial parce que semaine bi ñu génn waxtaanoon nañu déjà ci langage de programmation PHP mais mënuñoo pare ci sujet PHP. te waxuñu ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni am na ay doomu Sénégal yoo xamante ni ñu ngi koy def ci euh, sukkandiku ci langage de programmation boobu ñu naan PHP. alors loolu moo tax nag tey ñu fas yéene waxtaanee framework PHP bi ñuy woowee Saman MVC nga xamante ni euh, maanaam ñu wax lan mooy Saman MVC naka la ñu defaree euh, framework boobu ak lan mooy njëriñam pour développeurs yi et pour waxtaan boobu nag dañu si ànd ak professeur Ngor Seck nga xam ne mooy fondateur Saman Corporation bi xamante ni ñoom ñoo créé Saman euh, framework euh, Saman MVC monsieur euh, Seck ziar nañ la. Ibrahima ñu ngi dellu ziar bu alors donc euh, merci Ibrahima donc maa ngi lay jaajëfal lu baax a baax di la remercier mm, aussi ci invitation bi. ak opportunité aussi bi ñu may ñu mën a présenter un petit lii li ñu def ci suuf par rapport à suñu contribution aussi ci numérique bi ko merci beaucoup allez macha allah alors monsieur Seck j'espère que euh, doo séeréer de jaxar yaakaar naa. <laughs> bien sûr séeréer <laughs> ah séeréer nga. oui ah, ah, ah, <laughs> ah kon man tey sa buur laa ko ok après après émission bi ñu investir lii ko waa am benn problème incha allah alors ñu dugg directement ci sujet tey bi maanaam waxtaan ci framework saaman MVC bi nga xamante ni fii lañ ko defaree fii ci Sénégal. alors. Sénégal euh, bëri na ay ay ay développeurs ak ay intégrateurs maanaam ay borom xam-xam yoo xamante ni dañuy defar ay site web ay application informatique pour loolu nag dañuy utiliser euh, lu ci gën a bëri ay technologie yoo xamante ni feneen la ñu ko defaree maanaam mu nekk ay Europe ay Amérique wala ay euh, ay Asie ak yu demee alors tey suñu réew mi nag am nañu ay borom xam-xam yoo xamante ni mën nañu defar lu nu mel. mais plus encore mën nañ ci yokk ay touches d'innovation ba nga xamante ni dooñu dootuñu soxla jéggaani lenn fenn alors pour euh, dimbale développeurs yi ak euh, ci seen liggéey pour que ñu gën a efficace professeur Ngoor Seck dafa créer euh, benn framework bu ñu waxee Saman MVC alors monsieur Seck lan mooy Saman MVC. merci beaucoup Ibrahima donc euh, Saman comme ni nga ko expliquer léegi nii. Euh, framework la c'est-à-dire en ci anglais lañ ko mën a faram-fàccee cadre de travail maanaam day permettre développeur bi comme ni ñu ko expliqué léegi nii moo mën a am environnement boo xam ne day stable du changer te quelle que soit formation bi nga mën ci def nga mën a vraiment bu ñëw ci framework bi nga mën a xam architecture bi donc day yombal bu baax liggéey bi donc Saman MVC comme son l'indique dafa am Saman am MVC Saman c'est-à-dire mooy tur bi. Euh, en général euh, donc on est tous dans le domaine euh, li ci gën a bëri yi ñuy créer en informatique on donne en général en fait ay turu animaux. c'est les même en fait le cas de l'éléphant du du du de l'informatique comme PHP bi nga xam mooy langage de base bi. Saman c'est-à-dire c'est c'est mot en en en séeréer donc j'ai cherché donc dafa doon wër à la fois. tour boo xam ne day facile à prononcer en même temps également ça se rapproche un peu c'est-à-dire day jege un animaux yi moo tax ma jël le turu saman c'est-à-dire un peu serpent en en français un peu comme python en fait ok ok parce que man bi ma gisee turu saamaan bi dama gis ne dafa euh, c'était très original maa ngi waxoon dinaa laaj sax lan moo nekk histoire bi nekk autour de saamaan parce que dama xamul ndax saamaan làkk làkk la wala déet quoi voilà. waaw waaw waaw si si si. waaw benn làkk la donc benn mot la bu dérivé ci séeréer c'est-à-dire euh, mooy sama. ok ok ça c'est sûr et c'est hyper cool alors. Euh, avant ñu gën a xuus nag avant ñu gën a xuus ci sujet bi c'est-à-dire parce que tey xam naa ne euh, man boo etul damay ragal ne dinaa def benn épisode boo xamante ni épisode bu gudd lay doon. ah oui. Mhm. alors pour que auditeurs yi gën a comprendre est-ce que mën nga ñu expliquer déjà lan mooy framework lan mooy MVC ak aussi lan mooy njëriñam ci biir euh, programmation informatique. merci déjà euh, avant may expliquer sax lan mooy framework bi. Mhm. c'est-à-dire damay expliquer waa. Mhm. ñu war jàng seen bopp. ok en fait bu ñu jàngee ci ci école yi le plus souvent lu ñuy jàngal mooy euh, maîtrise architecture bi maîtrise algorithmique maîtrise design ak yooyu c'est-à-dire dañuy jox ay briques. Hmm. mais compétence bi des na. entreprise lu ñuy wër mooy c'est-à-dire compétent pour mën résoudre seen problème alors pour résoudre un problème également entreprise beneen problématique bu nekk ci gannaaw mooy problème de maintenance logicielle. donc bu fekkee Ibrahima dafa nekk développeur euh, peut-être senior mhm. en PHP ni muy codé man ma nekk développeur junior te boobu man war a maintenir application am na nu muy nu moom muy codé ba damay perdre temps pour maintenir en fait application bi te en matière d'entreprise c'est-à-dire application yu ñu utiliser en général développeur am na solo mais li gën am solo mooy maintenance te maintenance lu tax mu critique application bi nekk en cours c'est utilisé c'est-à-dire il d'argent c'est-à-dire activité yu bëri day dépendre application bi mhm. donc bu mise à jour maanaam bu yokk ay fonctionnalités dafa war a gaaw mhm. maintenant bu ñu amee benn cadre de travail comme nañu ko waxee en français c'est-à-dire benn euh, environnement boo xam ne day permettre développeur moom automatiquement bu duggee rek ci code bi xam na fi mu nekk moom lañu wooye framework donc day gën a yombal liggéeyam te maintenant MVC bi mooy lan donc euh, c'est MVC en anglais donc modèle view controller donc design pattern la maanaam euh, ay ay bonnes pratiques euh, cest bu ñuy coder dafa am lu ñuy coder ak ni mhm. ñu war a coder. c'est-à-dire ni ñuy coder ni ñu war a coder cest ko mën a expliquer un tout petit peu cest dire dafa am li ñuy wax norme booy développer application am na problème yoo xam ne am na solution yu ñu teg. cest dire dafa am 23 modèles de conception maanaam euh, ñaar ak ñett modèle de conception modèle de conception mooy euh, ay bonnes pratiques rek quoi cest dire bu ñu la nee bu mu waree am benn euh, benn interface bu ñu créé war a attaquer base de données peut-être en détail am na nu ko war a coder. damay créer benn de base boo xam ne moom mooy attaquer base bi les fichiers bu ko attaquer jox données yi beneen interface beneen interface boobu jox données yi interface finale maanaam muy mooy vue. loolu en fait noonu la ñu ko war parce que loolu moo set day yombal maintenance bi moom modèle de conception la c'est-à-dire loolu yëpp dañ ko normaliser ak euh, ay groupe ay gang of ay yenn modèle ay organisme yoo xam dañ koy euh, la labelliser donc euh, il faut xool ko bu baax a baax yaana 23 ak yeneen quatre yoo xam ne dañ ko ci wax pour utilisation MVC nag dafa bokk ci modèle de conception d'utilisation maanaam ci biir MVC dafa am modèle de conception yu bëri singleton mën na ci nekk façade mën na ci nekk abstract et cetera maanaam bëri trop ay modèle de conception okay. ce qui fait que booy def MV day permettre vraiment nga am benn vision trois cent soixante vraiment ci bonne pratique informatique noonu lañ mën a un peu euh, faram fàcce lan mooy MVC ok donc ay ay ay yoon la yoo xamante ni boo si jaaree sa liggéey de gën a nekk am jaar ci norme yi quoi eh, mhm. alors donc euh, li nga expliqué noonu je pense que leer na trop clair na alors mais damay revenir un peu ci ginnaaw c'est-à-dire euh, parce que bëggoon naa xam aussi euh, Samana MVC projet bi naka la juddoo naka la projet bi juddoo ba ngeen créé ko nii quoi voilà. merci donc projet bi déjà euh, question bi man yàgg naa ko poser en fait quoi parce que am benn challenge aussi bu ma posé woon maanaam. Mhm. daal en général bu mu doon wër YouTube. yu bëri daal en général surtout vers les années 2014 vidéo yu bëri même tutoriel sax artisanal anglais lay doon wala euh, même ak euh, français canadien man na daal vraiment ñun daal vraiment dañoo nekk quoi est-ce que mënuñu aussi même bu dee seen YouTube sax ñu créé ko wala benn modèle may nekk deuxième année na njëkk euh, def benn recherche internet ni ñuy créé framework ma gisoon ci benn série de vidéo de quinze bu suivre ma suivre ko defar naa ko mais compréhension bi des na. maanaam c'est-à-dire am na yu bëri yoo xam ne di codé. bi ma commencé sama activité professionnelle vers euh, deux mille douze ba deux mille treize laa commencé nag intégré deux commencé intégré formation yi cest à école de formation privée yi di jàngale en deux mille deux mille dix sept ñu jox ma benn école benn classe d'ingénieur maanaam ñoo xam ne bon ingénieur moom bu ñu ko waxee mooy maanaam koo xam ne bon dafa a créatif en fait quoi. exactement ma di jàngal langage PHP. ci biir déjà man amoon na idée création bi moo doon jàngal na ci biir programme bi modèle MVC c'est-à-dire dafa bokk ci programme bi. ma ne non attends au lieu framework bu ñu defar ba pare nga xam ne dañuy ñëw rek appliqué dama leen di woon carrément nan la ñuy monter couche MVC yi. donc euh, bu bu bi ñu ci monter modèle MVC bi euh, ba mu ba mu taxaw laa gis ne vraiment benn couche taxaw na ci framework maanaam am couche core bi waaye en fait l'élément core mais des na parce framework nekkul rek modèle MVC loolu architecture bi la rek framework pour mu mën a taxaw il faut ay services maanaam il faut que développeur bu ko utiliser loo xam ne da ko waroon a codé mu fekk ko ci moom pratiquement day personnalisé rek quoi voilà mais au moins vers 2017 2017 au moins amoon nañ benn architecture boo xam ne lii moom framework la et aussi euh, ma ci jaajëfal quelques étudiants yu ma amoon c'est-à-dire quatre étudiants yu ma ci doon accompagner bu baax a baax. yoo xam ne vraiment dañoo disponible parce que projet open source boo gis en général toujours rek il faut ñu accompagner la c'est-à-dire def. il faut ngay def de temps en ñoom ñu andi ay feedback mais est-ce que yokk est-ce et cetera man gis naa ne framework bi am nañ benn paquet gis koy mettre et cetera donc ku ba ñëw teg vraiment benn architecture boo xam ne au moins euh, vers deux mille dix huit début deux mille dix mhm. amoon nañ dara quoi voilà. ok macha allah sur internet. ok ma donc travail travail d'équipe bu am solo la euh, toujours di wax aussi que ne je pense que euh, kenn benn nit rek mënul def lépp quoi donc comme li nga wax rek travail boo gisee dafa laaj équipe dafa soxla équipe. je pense que bu nit ñi amee euh, idée boobu noonu di travailler en équipe dinañ mën a euh, dinañ mën di def affaire challenge def ay affaires yu am solo alors euh, je pense que ni euh, am na je pense que ni beneen question bi ma la bëgg laaj mooy que ne alors am na ay langage yu bëri yoo xamante ni mun nañ ko utiliser pour defar ay framework surtout pour développement euh, web ak yu demee noonu alors lan moo tax ngeen choisir PHP c'est parce que da ngeen yàgg ak PHP wala da ko càmbar xool ko ba mu baax ne gis ne PHP bi moo gën a efficace pour liñ bëgg defar wala nan la demee noonu naka ngeen def ba choisir PHP. très bien je pense que am na ñetti justification mhm. maanaam ñetti lay bu ñu mën a andi pour euh, choix PHP bi ñaar en général ñaari langage yi nekkoon ci kanam mooy PHP ak Python parce que yeneen langage yi boo jëlee exemple de Java c'est la sous la houlette de Sun à l'époque mais Oracle moo boo jëlee langage yu Microsoft loolu vraiment Microsoft mu nekk ci gannaaw donc mënoo ci jël def ci lu la neex donc après même euh, on va revenir sur la notion de liberté et d'open source mais boo jëlee l'exemple vraiment benn communauté bu ngand moo nekk ci gannaaw boo xam ne franchement euh, en fait ils sont libres ils sont vraiment disposés à accompagner la communauté ma ne non attends comme présentement ñun amoon nañ benn architecture bu taxaw buñ créé woon mais pourquoi pas ça te aussi beneen justification mooy expérience bi aussi parce que en général choix technologique pour développeur entreprise bokk na ci. exactement am na ci solo trop dem ci entreprise. Mhm. da ci benn benn technologie. Mhm. plus ngay développé dañ ci développé affaire yu kawe yoo xam ne dañuy de ba am benn maîtrise totale benn aisance boo xam ne lu nekk def ko ci donc loolu quand même amoon naa chance dal foo xam ne franchement ñaari entreprise successives yoo xam ne dama doon def PHP ak pour Java ci ci suuf mais vraiment PHP dama ko def niveau bu kawe kawe loolu deuxième justification bi la. voilà troisième bi mooy euh, bon langage bu bu bu bu très utilisé au Sénégal aussi parce que booy créer dara toujours créer loo xam c'est utilisable parce que créer aussi langage boo xam ne c'est pas très utilisé amul sens donc au Sénégal franchement ñëpp xam nañ ne PHP niveau bi am. ci ci code bi mu am ci part du marché bi. Mhm. am na solo trop donc choix bi ñett ko justifié je pense que même PHP bi ak euh, framework yi muy àndal yëpp dañ koy fu nekk keroog épisode bi passé rek euh, ñu ngi ciy waxtaan euh, may wax ne PHP à ma grande gis naa ay sites yu mag yoo xamante ni yu mel ay France 24 et j'ai vu que ne ko développé donc PHP am na am na solo trop trop trop alors léegi sànq da nga wax aussi benn benn aspect bu am solo maanaam open source. alors bi may def ay recherche sur internet apport gis naa aussi que ne euh, framework Saman MVC bi dafa c'est open source alors naka nga ñu mën a expliquer lan mooy open source ak lan moo tax ngeen choisir modèle boobu noonu pour seen projet. donc euh, premier choix bi day ñëw ci man communauté ma njëkk a bokk. Mm. parce que il y a une communauté bu bu active woon à l'époque. Uh -huh. vers deux mille on deux mille douze nga xam dañu doon dem souvent vraiment des rencontres à l'AUF même c'est euh, Dakar Ligue c'est-à-dire Dakar du ma ci gis dama doon assister vraiment y avait des seigneurs doon gis mais en fait vraiment euh, philosophie bi neex ma trop. parce mhm. que c'était des de partage dañuy gis ko xam ne benn affaire ñu exposé ko dama doon dem foofu c'est découvrir benn technologie wala benn affaire non non ça génial quoi. waaw aussi. ci mhm. euh, formation entreprise aussi ci gën a aussi may formé pratiquement open source la damay dem YouTube codé codé codé xool mais longtemps sax ma dem amul benn benn astuce damay dem euh, YouTube euh, di Google tapé code source mu jox ma code source bi. exactement ma xool lire waa ji def ci documentation def ci benn ma ne no lii vraiment c'est génial quoi te ñooñu vraiment ils le font avec passion ñenn ñi benn ay euro deux euro nga leen jox yooyu mais ñenn vraiment ils le font parce qu'ils veulent aider bi ma demee nag man boo war a créer en principe bi war a am C'est-à-dire, j'assistais à des seniors, des masters qui, qui m'ont donné des, des dans YouTube, j'ai téléchargé des vidéos. bi ma aussi vraiment en fait avec ko xam ne da créer sànni ko vraiment may ko gars donc euh, avec benn benn ben benn benn liberté. donc ma ne non si on fait ça man jarul ñu koy monétiser quoi que ce soit mu nekk suñu contribution mais tout ce qu'on dit en fait l'appétit vient en après am projet yoo xam ne. dina ñëw quoi loolu dinañ dinañ ci wax sax ci kanam tuuti euh, parce que am na ay questions yu bëri yu la bëgg laaj ci euh, ci domaine boobu noonu alors euh, alors li ma gis aussi mooy que ne alors am na ñoo xamante ni. c'est-à-dire am na ay euh, application yu bëri yoo xamante ni mën nañ ko def avec framework yi c'est-à-dire am na ay application euh, de gestion ay appli site application de e-commerce alors avec Saman MVC ah, yan façon application lañ mën a defar c'est-à-dire dañuy dugg léegi ci biir euh, fonctionnalité yi après donc am nay question ci fonctionnalité yi mais yan d'une manière générale yan façon application lañ mën a defar avec Saman MVC très bien léegi framework toujours rek liñ mën a comprendre mooy framework cadre de travail la rek. c'est-à-dire moom dafa basé wu ci langage. maanaam framework mën def mooy langage bi mën a def ci gannaaw PHP moo fa nekk maanaam PHP est un langage à base vraiment orienté web Rasmus Lerber vraiment pour compte nombre de am loolu la woon donc PHP ñu ci gën a bëri bu ñu ko utiliser vraiment application web la maanaam wam li ci internet maanaam créer ay site web créer bien mën nañ léegi web mobile dafa am maanaam mobile first et cetera maanaam dañuy créer application responsive bi utiliser ko fu ne donc euh, mais quand même orientation framework bi web la pourquoi parce que langage de programmation bi nekk ci gannaaw c'est un langage bien serveur mais à la base vraiment c'était orienté web quoi. ok ok parce que li tax ñuy poser question parce que des fois euh, am surprise c'est-à-dire da ngay jékki-jékki. am ku la posé benn question des fois sax day nekk kuy doog a dugg ci informatique bees wala mu bugg cee dugg day jékki-jékki ne la euh, telle affaire est-ce que mën nañ ci defar euh, application mobile tu vois bu ma mën a installer sama téléphone wala genre donc euh, fois dañuy poser ay sax yoo xamante dañ naan ah mais c'est évident question bi c'est c'est terre à terre am na ñoo xamante ni tey ñu ngi nekk di def troisième secondaire wala ñu def terminale bëgg nañ dugg ci informatique bi donc il faut que ñu ubbi seen xel ñoom tamit wax leen lan moo leen xaar tu vois comme ça ñoom dinañ mën a am benn idée loolu moo tax des fois ñuy poser ay questions yoo xamante ni voilà pour que nit ñi mën a comprendre exactement li ñuy wax lan la quoi exactement alors beneen point bi ma bëggoon ñu ñëw mooy que ne euh, prérequis yi c'est-à-dire xam nañu ne euh, wax nga ñu léegi ci Saamana lan mooy Saamana MVC wax nga ñu aussi yan xeetu application lañ ci mën a defar et ça expliqué nga ñu MVC nag euh, lan mooy MVC yu demee noonu alors lan mooy prérequis yi su fekkee ne tey par exemple man en tant que développeur dama bëgg commencer à développer avec framework Saamana MVC. très bien déjà prérequis bi foofu il faut ñu comprendre que Euh, bu fekkee comme li nga ko li wax léegi nii c'est c'est très important parce que aussi gis naa seen podcast enregistré déjà gis naa ngeen wax ci PHP JavaScript ak yooyu même HTML CSS yëpp expliqué ngeen mhm. am na solo trop ñëpp parce que euh, framework de travail la maanaam dafa xaw a pare en fait pas un peu mais avant ngay bu fekkee maanaam da nga nekk développeur euh, junior buy ñëw li gën mooy nga jàng PHP jàng HTML jàng CSS jàng JavaScript ba am base boo ñëwee nag ci framework maanaam utilisation un avancer la maanaam le plus important dañ ko wax en fait moom PHP avancé. ok maanaam fii nii euh, non seulement c'est plus organisé c'est plus haut niveau mais yëpp dafa structuré wu dafa set. mais am nga lu il faut aussi nga am prérequis maanaam nga jàng élément de base loolu rek mooy prérequis c'est-à-dire euh, c'est pas compliqué langage yu ko wër yëpp vraiment compliqué wuñ trop c'est-à-dire yow boo ci am initiation. boo ñëwee ci framework bi aussi def nañ tout ba vraiment ci ay documentation yu yu bare bare bari. Mhm. ay vidéo même am na yu vidéo olof. waaw si gis naa ko benn série moo commencé woon. si si si si. voilà ci séeréer. donc commencé naa chantier bi bu aussi vraiment. ah ak ak ci ci nga ko def. oui effectivement am na ah, vidéo ma def ci séeréer mais ça c'est hyper intéressant parce que dafay rejoindre comme ñun li def en wolof nii tu vois ça c'est hyper hyper donc euh, mhm. euh, na sax parce que ci projet de euh, sama développé une équipe amoon na benn moom waxoon na ma en la même na ci benn benn parce que vraiment c'est 100 pour cent africain donc ku ci mënti jàpp aussi vraiment. donc on fait passer le message dans les dans les langues vraiment en eh, fait. dans communauté eh, gars yi eh, mun ko parce que man li sama objectif fi mu toll nii mooy fexe ñu génnee potentialité yi nga xamante ni am na ci ñun li ñu war a mun a defar ko parce que à chaque fois di jël li nga xamante ni fële la jógee alors que ñun mën nañ ko defar tu utiliser ko voilà pourquoi pas le plus souvent nag peut-être dañ koy am mais duñ ko xam tu wala bu ñu ko xamee aussi euh, peut-être am na benn travail bu ñu ci war a def à notre niveau tu vois euh, muy mel ni yow ak sa équipe ak ñëpp képp koo xamante ni day yëngatu ci domaine bi maanaam ci wàllu informatique ak communication am na travail bu ñu ci def jara def et je pense que bu ñuy def communication lii moo war a jara def communication c'est-à-dire euh, recherche yi ñi di def ak résultats yi ñuy ak outils yi ñuy proposer Sénégalais yi loolu moo war a jara def promotion mais bari na futurité yu bari ñuy def promotion actuellement ci dëkk bi tu vois je pense que yii ñoo war a gën a jara def promotion alors bu ñu demee nag ci beneen euh, point bi daa ah, dañuy gën a dugg encore ci en profondeur ci framework bi alors bu ñu waxtaanee ci prérequis yi maanaam euh, euh, dañuy dugg man naa ci biir framework bi nga wax ñu ci fonctionnalité yi parce que xam naa ne framework yu bëri dafay am ay fonctionnalité c'est-à-dire ay routage ay authentification test yu ak yu bëri bëri bëri alors tey ci biir Saman MVC lan mooy fonctionnalité yi yi gën a ràññileku ci biir framework boobu na très bien donc euh, comme yeneen euh, framework yi parce que avec la version jusqu'à la version 1.5 mhm. quand même vraiment dañ ko defoon modèle initial au moins ñu am architecture mhm. mais à partir euh, donc version un point un point neuf bi lañ commencé franchement respecter li ñuy wax normes yi norme parce que am na norme de développement mais am na norme ci biir PHP moom la ñu woowee PSR PHP standard recommendation donc ay numéro la PSR zéro PSR un PSR donc ci yooyu la ñuy sukkandiku ne non attends framework yëpp bu ñu utiliser li ñuy wax vraiment le naming space espace de nom il ñu utiliser ko ñu intégrer ko mooy corps bi quoi cest à li li li koy soutenir mooy première fonctionnalité bi deuxième bi également ñu xool ne framework yëpp le plus souvent boo ko exécuté dañu am li wax en fait un CLI c'est-à-dire command line interface boo xam ne ñëw taper un exemple benn commande mu démarrer un exemple ñu dugg carrément PHP espace serve framework bi démarrer voilà donc jarul nga démarrer benn kii euh, navigateur da ngay démarrer kii bi rek nga lancer navigateur. Mhm. def port d'écoute bi. automatiquement mu dem donc loolu mooy serveur bi. beneen bi également dañu intégré parce que li ma doon wër mooy euh, yee am na c'est-à-dire mën nañu ko intégrer mais yaa koy mën manuel comme mailing bi. plus souvent application yi développé yëpp en général plus souvent dañu soxla système de mailing maanaam bu authentifié wala peut mailing côté marketing et avec fonction vraiment yu approfondi nga ci joindre ay fichier mën nga également envoyer mail def naa ci aussi benn configuration SMTP xam da nga ñëw rek def sa adresse IP mail mot de passe et am daf ma ci boo xam ne c'est fonctionné déjà mën nañ ko utiliser des am na def nañ aussi benn fonctionnalité boo xam ne pour rapport PDF la Euh, parce que à la base man def naa formation en économie donc gestionnaire yeeg yooyu dañuy soxla genre bu rapport yooyu comme ay hmm. PDF pour vaccinat. ok c'est-à-dire ñu defee seen gestion ñu am benn rapport en format PDF quoi mun ko imprimer ak demee noonu. jeex na takk da ngay appeler benn fonction rek jox ko données yi nga war a imprimer. Mhm. cliquer mu édité wu automatiquement quoi. voilà euh, def na ci également benn système de d'uploading maanaam euh, loolu déjà c'est intégré euh, directement en PHP ah. mais ñun li ñu def mooy dañuy xool fonctionnalité yi ngeen di utiliser. Mhm. créer bibliothèque. ok mettre sa disposition def documentation da ngay ñëw utiliser fonction rek. Mhm. bu cliquer mu mu dem. voilà donc fonctionnalité phare Euh, yooyu la maanaam serveur bi core bi mailing bi PDF bi. Mhm. et la partie sécurité dinañ ci dinañ ci wax. waaw dinañ ci wax ci kanam tuuti parce que man partie sécurité moom daf ma amal solo trop ay je pense que ne euh, am na gars yu may déglu ay Gérard et tout ça ñoom aussi partie bu amal na leen solo bu baax tu vois je pense que loolu dinañ ci revenir euh, ci kanam tuuti quoi alors gis nañu aussi que ne bi ma doon def documentation di xool framework bi et framework bi tout ça gis ni ko waxee sànq da ngeen utiliser modèle MVC ñuy utiliser ci partie euh, vue yi c'est-à-dire benn moteur de template bu ñuy wax Smarty alors mais léegi dama la bëgg bàyyi nga expliquer ñu lan mooy moteur de template ak lan mooy njëriñam ak lu tax yéen ngeen utiliser Smarty comme moteur de template. très maa ngi lay ci question bi. Mhm. déjà comme ni ko waxoon maanaam framework nekkul architecture kese. ok maanaam il faut ñu comprendre benn affaire déjà mu ñëw avant moteur template bi maanaam en. ci développement maanaam booy créer application dañ ne am na quatre langage yoo xam ne dañuy ànd mais kenn war ko jaxase. ok HTML dafa à part CSS dafa nekk bénéficier CSS na bénéficier à PHP nekk à part donc quatre yooyu dañoo complémentaire mais kenn du leen mélanger benn code. alors mais le problème qui se pose c'est quoi c'est que le HTML bi ñu xamoon dafa statique. ok alors que ñun un exemple comme rapport PDF ma wax léegi nii bu war a éditer PDF mais données yi ko andi. il faut nga def soit benn requête JavaScript Ajax mu andi ko nga imprimer ko wala nga def PHP intégré ko alors que bu defee loolu duñu respecter yi parce que normes yi mooy duñ duñ mélanger foofu nag la développeurs yi maanaam les créateurs créer ay lu ñuy wax moteur de template comme son l'indique moteur la yoo xam ne da ngay rester HTML fichier HTML lay doon mais mën nga ci intégrer loo xam ne day dynamique moo tax le plus souvent dañuy naan HTML statique mais benn niveau la mën na dynamique dans le da ngay garder point HTML wala peut-être point TPL mais HTML lay utiliser mais def ci lu neex def ci ay ay boucle for maanaam di itérer maanaam di di di dugal euh, di dugal ci ay tableau di récupérer données wala ngay nga ngay def ay conditions naan lii condition bi bu amee lii ngay def et cetera mais loolu moteur template kese la ko mën a may les moteurs nag dañoo bëri am na Smarty am na Twig am na yeneen yeneen framework yi ñu jiitu. voilà peuplé trop comme symphonie comme Laravel am na nañ seen moteur template c'est loolu mooy base bi voilà ñu ñëw def étude maanaam dañoo xool moteur template yu bëri bëri parce que avant ngay créer benn affaire il faut nga def étude de l'existence. il faut nga xool yan ñëw positionné. def recherche voilà. Ah, yi man li ma gën a frappé ci smart mooy système de cache am bi maanaam smart yi boo démarré application bi day créer benn dossier nommé caching cache ah euh, fichier boo day créer benn euh, genre binaire. dugal ko foofu bu ñëwaat ci page bi bu fekkee code bi laaruñ ko moom du chargé waat page bi complètement mais cache boobu la lay andi ak données yi donc système smart yi donc c'est hyper hyper performant parce que day aide PHP aussi parce que PHP seule contrainte normal seule limite mooy côté interprétation maanaam nekkul langage bu ñuy compiler. ok ok c'est-à-dire mais bu ko bëggee benn système de caching. Mhm. ci biir PHP. Mhm. Euh, bon cache bi peut-être naa ko mën a faram-fàcce après mais cash bi quand même nañ comprendre ne euh, un exemple man bi may discuter ak yow nga mu pose ma benn question ma jox la réponse nga pose ma deuxième question waratuma répondre dama la war jox réponse bi loolu la en fait quoi c'est-à-dire ñëw naa ci benn commerce ay produits produits affichés wu. ma dem cliquer ci beneen produit ma ñëwaat ci même produit bi ma cliquer war ko ñu dem ci base de récupérer dañu war a cash bi rek envoyé ma ko. ok donc cash bi donc cash bi benn ah. réservoir la buy denc euh, information yi de telle sorte que yow eh boo soxlaatee information information yi du jar muy dem ci base de données bi di ko jëliwaat mais dala koy jox directement. directement sax li ñu war a traité yëpp da koy teg foofu. Mhm. peut-être bu bu soxlaa peut mu dem ci base bi vérifier ndax am modification mu def ko. mais loolu nag système interne la maanaam réseau web nag dafa am lu muy fonctionner système de carte la fois serveur c'est navigateur maanaam ñoom am na ñuy communiqué ci biir ba mën a comprendre li wul li am na modification bu ñuy jox lii la ñuy joxe en fait quoi. mais Smart Icon en point fort laa ci gis aussi benn euh, bi ma defee recherche amul benn framework pour le moment bu koy donc euh, donc c'est justifié quand même que noonu nañ ko utiliser. Ah ah ñu ñu ñu ko. Mhm. voilà teg teg teg ci marché bi gars yi xam ne aussi. Mhm. ñëwuñ di copier gars yi la ñuy def. dañoo dem def recherche. surtout loolu am na ci solo bu baax sax. ci sol bas c'est-à-dire foog nga génn foog ah, que booy ñëw di def li gars yi di defoon rek utiliser seen même euh, sa day xaw a arrêté quoi affaire bu bees je pense que di nga ko mun a am expérience ak moom ba ëllëg si biir waxee smart dañ ne ah Saman MVC moom lay utiliser alors naka la ko implémenter et kala mooy les hauts et les bas et tout ça alors di nga ci am expérience quoi allez-y. donc euh, c'est c'est effectivement ça. Euh, beneen affaire bi mooy li ma bëgg a expliquer juste ci création framework mhm. le but c'est vrai que c'est à la fois compliqué mhm. mais compliqué wu parce que euh, boo amee architecture lu ci gën a bëri ñun ñëpp open source lañ la ñuy travailler ak libre am na benn moo xam ne explique moo sax mooy la liberté en fait du code la liberté d'utiliser de modifier donc de moom day compléter un peu open source bi en fait la liberté c'est-à-dire boo jëlee euh, bu ngan bu mënti doon Symfony Laravel am na yu bëri yoo xam ne c'est pas en interne lañ ko développé euh, ko développé même système de clé de crypto yi am na ay systèmes yoo xam ne dañ koy développé mettre à la disposition nga utiliser ko. léegi bu dee PHP dañoo am benn système mm-hmm. def ci PHP dem fa nga wër paquet bi nga soxla. léegi yow yaa koy customiser maanaam yaa koy euh, modifier en fonction de ta manière jox ko tur bu la neex utiliser ko ci sa framework framework yëpp noonu la ñuy donc bi ma découvrir loolu la xam ne franchement nous on a le potentiel c'est que on n'est pas créatif mais on a le potentiel pour vraiment créer des choses extraordinaires bu fekk gars aussi vraiment liberté bi aussi ak euh, aussi a dox quoi. ok ok non mais je pense que créativité bi sax mu ngi ci déjà parce que euh, defar benn affaire indi ci sa touche personnelle déjà loolu créativité bu mag la ak innovation la te surtout mu nekk loo xamante je pense que amul benn framework bu mos a bon euh, à ma bi may def recherche gisuguma. gisuguma waaw je que man mi yow. voilà man bi seen framework bi laa ci njëkk dégg quoi. Ouais. Et je pense que maa ngi souhaité maa ngi souhaité même africain ah ouais maa ngi souhaité jeunes yi gars yëpp daw ci affaire boobu noonu parce que c'est pas diable je pense tu vois euh, war nañ ko mën a def voilà war nañ mën a jege ay genre yu mel ni euh, monsieur Seck pour jéem a am seen expérience mais aussi pour mën a développer yeneen ñu gis fi yeneen framework yu bëri yu judd yoo xamante ni euh, ci yeneen langage sax wala yeneen yeneen affaire quoi voilà alors beneen bi ma bëgg poser toujours ci modèle MVC bi la cest à gis nañ ba léegi que ne da ngeen utiliser lu ñuy wax lu ñu woowee ORM ORM alors lan mooy ORM ci modèle euh, ci ci kii bi euh, comment dire ci modèle bi quoi sa à lan mooy ORM lan mooy njëriñam et lan moo tax ngeen choisir je pense euh, doctrine ci seen projet bi yéen tamit. très bien ci couche yi rek. waaw li ñuy wax rek maanaam framework voilà loo bëgg a def am na lu ko uh-huh. après buñ paree yow boo ci question yi ni ñu ko jëlee nii vraiment leer na nañ. buñ paree ni ñu mën a résumer yëpp quoi. exactement maanaam booy. wala si da soxla li ñuy wax base de données. ok base de je pense vraiment ak euh, certains mooy seen invité yi ci doon expliquer yooyu yooyu. donc base de données mooy maanaam boo amee ay ay ay ay données yooyu yooyu manipuler information rek la quoi da ngay am benn métaphore yi ñu en général mooy mooy en fait appartement. ok ci appartement dafa am ay chambre yi stocké information yi en fonction si nature moom la ñu woowee table léegi table base de yi ñu gën a utiliser. en général dañ ko woowee base de données relationnelle maanaam mooy base yoo xam ne day nekk tableau tableau am ay lignes te ci lignes yi la ñuy information yi mais loolu euh, en informatique boo koy xool dafa nekk loo xam ne dafa relationnel te loolu genèse am aussi mu ngi jóge un peu ci mathématique algèbre relationnelle en fait quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà ko jëlee maanaam boo jël ay ay matrices yooyu ay table doon ay lignes wala nga info individu information maanaam ay nature am ay colonnes colonne bu nekk aussi daa am données yu koy moom la ñu woowee champ wala en léegi loolu base donnée bi la mais boo nekkee ci PHP maanaam niveau euh, pas en fait euh, élevé mais vraiment niveau on peut dire niveau élevé quand même. bi ñuy utiliser parce que langage bi ñu utiliser PHP la mais ci biir dafa am li ñuy wax ay paradigme de développement je m'explique booy def PHP am na ñaari manière de faire du PHP ñaari euh, manières yi mooy lan c'est-à-dire première manière mooy procédurale damay ñëw créer ay fichiers bu ma créer ay fonctions. rek utiliser après def inclusion include include ñaar deuxième méthode bi mooy de plus en framework loolu ñuy utiliser parce que loolu standard loolu recommandation yi mooy utiliser ay classes léegi classe boo ko utiliser en fait day am lu ñuy ay fonctions mais méthode léegi ORM euh, moom dafa ñëw ne base de données jarutul ngay ñëw di créer ay requête SQL maanaam naan insert into anglais ay phrase rek en anglais quoi insert into étudiant value maanaam damay dugal ci table étudiant ay valeur léegi cité valeur yi ñun wee benn méthode bu ñu woowee persiste. ok mu insérer base donnée bi. Mhm. mais li nga def noonu en fait c'est-à-dire qu'il a utilisé une méthode da utiliser benn fonction boo xam ne. Mhm. c'est déjà programmé. programmé waay moom fonction boobu nag. voilà mooy wu ba mën a xam ne table bi lii laa la faire exécuter moom la ñuy wax mapping. ok léegi mapping boobu correspondance entre relationnel bi ak yow orienté objet bi nga ne moom la ñuy woowee ORM c'est-à-dire object relationnel mapping. ok bi mooy orienté objet bi ñu ne mooy classe yi ñu mhm. relationnel bi mooy base de données mooy li ma expliqué mhm. léegi mapping bi mooy correspondance. léegi boo bëggee def nag boo ko codé aussi gars yi créé nañ ko ba na doctrine bi mooy occuper place bu puissant que même Symfony moom la utiliser parce qu'on a fait des recherches mais franchement doctrine ko fi beneen avantage doctrine mooy lan dama doon ratisser large même am na benn ORM bu utiliser en Java standard muy JPA dafa jege trop ak doctrine. ok dañoo niroo quoi def Java bu ñu ah dañuy niroo mhm. voilà c'est-à-dire ku jógee ci framework bi da ngay nekk à l'aise parce que Doctrine ak JPA dañoo dañoo méngoo même fonctionnalité yi dañoo kii en fait quoi donc loolu ORM de on a choisi parce que justificatif bi loolu la euh, que vraiment dafa puissant te aussi boo bëggee def loo xam ne dafa un peu standard il faut nga rapprocher ci recommandation PHP yi mooy PH mooy PSR yi. PSR yi PSR yi voilà PSR yi moo wax léegi mooy PHP standard recommendation mooy recommandation PHP teg. mooy utiliser ay classes utiliser use bu utiliser ay require mais utiliser en fait ay ay espace de nom yooyu donc euh, mo loolu mooy justificatif. alors ORM bi ak doctrine ak doctrine bi quoi je pense que PCR yi PCR yi nga wax noonu léegi nii euh, am na solo. et war nañ ko mën a après si possible nga envoyé comme ça ma def ko ci description podcast que nit ñi am benn documentation aussi ci euh, recommandation yooyu noonu quoi tu parce que voilà ku bugg am benn euh, documentation bu gën a large ci affaire bi nga mën a dem foofu pour mën a voilà vérifier euh, documenter ou quoi voilà alors. alors ñu dem ci beneen partie bi c'est-à-dire euh, après peut-être di nga def benn résumé bu mag après mais damay duggaat ci benn partie maanaam partie euh, partie sécurité parce que sécurité nekk na loo xamante ni dafa am solo trop trop trop trop trop alors lan nga ñu mën a wax ci sécurité yi nga xamante ni implémenté implémenté ngeen ko ci euh, framework bi pour mun a sécuriser fonctionnalité yi nekk ci biir lu ci mel ni ay rôle yi ak droit d'accès yi pour lutter contre injection SQL yi lan ngeen ci def exactement ci biir framework bi. très bien déjà euh, choix ORM bi rek moom. Mhm. Euh, en général day moom day filtre yenn injection SQL yi. déjà côté boobu donc injection SQL maanaam bu exécuté requête bi ñoo xam ne yoo xam ne baaxul. Mhm. nga exécuté ko nax base bi résultat déjà ORM bi day jël benn liggéey bu ndaw mais dayul. en fait côté sécurité bon euh, c'est vrai que nag informatique euh, on est tous des des domaines mais xam nga ku nekk ak sa spécialité. exactement da ngay gëstu donc c'est pas sécurité du sama spécialité mais foo nga gëstu au moins sécurité web voilà donc euh, yaa ngi je pense euh, Gérard voilà donc y a Guèye également donc y vraiment des en, en sécurité informatique mais au moins ñun xam nañ ne en sécurité y a ce qu'on appelle des d'accès yoo xam ne sécurisé. ok voilà donc euh, y a voilà donc a des protocoles qu'on utilise quand même peut utiliser am na bu ñuy woowee OAuth am na JWT.

wax li ngay wër ñu wax la paquet bi de temps en temps les gens vont jusqu'à te montrer un peu comment on ok boo jëlee code bi nag am na léegi bu ndaw booy def sa sa nga jël JW boobu wala OF2 bi implémenté ko jox lu tur bu la neex. créé waat ko aussi delloowaat ko communauté ok noonu lay demee. alors donc euh, je vois que li la communauté bi jox moom ngay créer après retourné waat leen ko mu gën a performant ak sa touche personnelle alors c'est hyper inter c'est hyper intéressant foofu moo may may sax euh, possibilité mu duggaat ci benn point bi c'est-à-dire communauté bi alors est-ce que euh, tey jii nii euh, non avant sax communauté bi da bëggoon naa laajte actuellement ba ngeen dalee travail ci yaa ngi may wax 2012 2017 je pense tu vois 2012 2017 quelque chose comme ça mais euh, depuis lors fan ngeen toll ci version yi ci ban version ngeen toll toll et aussi est-ce que am na communauté bi ñoo xamante ni ñoo ngi utiliser framework bi fii ci Sénégal wala ci bitim réew. très bien donc euh, côté version bi depuis bu ñu donc euh, là ñu ngi ci version un point neuf point trois ci version yi tamit dafa dafa baax trop nga nga faram-fàcce mooy un point neuf point trois. ok le plus souvent bu ñu un point neuf rek boobu na. ok mais bu ñu ne un point neuf point trois maanaam am na fu ñu bëgg a jëm mooy un point deux un point un point deux bi. mais daa am ay étapes yu ñuy yu ñuy teg ay briques yu ñuy teg instant yi biñ mujjee teg benn brique mooy bi ñuy intégrer vraiment lépp luy système de de de d'ORM et également avec le namespace voilà donc ci lañ jógee un point un point neuf point zéro bi dem un point neuf point un bi ci un point neuf point un jusqu'à un point neuf point ci lañ euh, lañ lañ def parce que man nga ko def ba def ba créer version bi ci bi ci biir ngay utiliser def la ay ay retour ok ok nga ne noonu war ko sécuriser waat un exemple am na benn moom la tuuti système de routing bi c'est-à-dire boo ñëwee même boo xam ne architecture framework bi nga ñëw mais am na benn dossier pour SRC nga tapé SRC automatiquement dañ lay génn. ok ok voilà dañ ne carrément noonu route boobu existé wut na mais ñun ñoo bëgg gars yi duñ ko mën a gis. sécuriser affaire yi en fait quoi loolu également ça a donné naissance également à un point deux et après maintenant là on est à version un point un point un point neuf point trois léegi ñu ngi travailler nag léegi ci version bu bu customisé bu fort ci sécurité bi bu ñuy combiner vraiment ay ay fois aussi technologique ku ci bëgg nga utiliser ku ci bëgg nga utiliser overcoupling nga yeneen protocole sécurité ak ne mën nga ko jënd intégré ko mën nga utiliser clé clé de base yi. loolu dina am solo voilà boobu la ñuy bëgg mooy nekk ci un point neuf point quatre wala quelque chose comme ça. deux point zéro bi. deux point zéro ok ok. 2.0 ok ça marche ça marche parce que euh, système de nommage boobu aussi am na solo trop tu parce que même bu fekkee même bu après système de nommage sax euh, am benn documentation boo xamante ni day expliquer chaque version lan moo nekk euh, delta bi lan lañ ci def comme différence et tout ça tu vois dafay am solo trop parce que pour ñu koy utiliser ñu gën a xam tamit naka la framework bi di doxee ak ni muy évoluer feedback bi gaa ngi ciy répondre ak activité bi ci am quoi parce que nag tey li ma bëgg question yi ma am yëpp sax dafa bëri ba nga xamante ni <laughs> xaw ma euh, te te temps bi xam naa lépp xaju fi mais dinañ essayer jéem a am question clé yoo xamante ni foog ñu poser ko quoi alors alors ñi nga xamante ni par exemple dañoo dañoo bëgg contribuer parce que am na ñoo xam ne xamante ni euh, ay développeurs lay te bëgg nañ contribuer ci code source bi ci ah, ci évolution framework bi ñooñu naka lañ mën a def pour contribuer ci projet bi. très bien loolu nag pratiquement ñun anticiper nañ ko code bi c'est déjà disponible ci GitHub bi. te ku mu neex nga def request maanaam bon léegi GitHub nag plateforme en ligne la développeur yi moom nekkatul seen secret. parce que même bu dul ëpp code entreprise force di nga travailler ak moom. parce que yooyu ay moom la ay outils de versionning lañ ko woowee informatique nga xam ne bu may développer mën na nekk privé ku nekk public. entreprise aussi une parenthèse il faut comprendre que c'est vrai qu'en Afrique au Sénégal il pas de yenn entreprise mag yi le plan dañuy créer seen framework denc ko ci biir di ko di ko tëgg di ko defar pour seen entreprise interne voilà donc GitHub également moom dañuy permettre parce que vraiment c'est depuis l'avènement de Linux avec Unix ak yooyu donc dañuy permettre ñun développeurs yi bu ñu créer benn affaire lancer ko ci en ligne léegi yow bu ma la wonee lien bi bu nga xam URL bi yow da nga may envoyé benn requête maanaam da ngay benn colonne récupérer man ma def liggéey ci ay sa branche bu la neexee mën naa la aussi bu fekkee communauté la man ma invité la en tant que euh, contributeur léegi ma invité nga validé automatiquement da ngay nekk ci biir communauté bi yow tam di nga mën a créer sa branche maanaam branche nag mooy booy liggéey da ngay la ci benn sujet prédéfini bu ñu ko validé man ma yox ko ci projet bi en tant que master. waaw noonu lay demee parce que nekkul li ñuy codé ci kii am na yu bëri yu ñu codé mhm. mais c'est en version lu bëri bëri bëri yoo xam ne codé nañ mais parce que dafa war a stable avant ñu koy intégrer aussi quoi ok ok bëri donc bu nit ñi di di contribuer après derrière y équipe boo xamante ni ñoom ñooy valider contribution yi xool ndax càmbaraat ko xool ndax li communauté bi euh, contribuer yëpp baax na def review bi et tout ça avant ñu koy euh, merger wala avant ñu koy def ci master bi ba nga xamante ne accessible à tout le monde quoi loolu aussi euh, jar na xam bu baax quoi alors alors alors alors beneen euh, question bi moom xam naa si euh, voilà beneen question bi mooy nekk xam naa ni tey pour def framework boobu noonu dafa laaj mooy bëri. tu dafa laaj temps bu bëri dafa laaj équipe bu am doole maanaam def développement yi def maintenance bi tu vois tout ça ça demande beaucoup de choses parce que man mi euh, jéem am na ñu bëri ñoo xam ne jéemoon nañ essayer def auto entrepreneuriat créer affaire mais c'est très très très très compliqué alors yéen chez euh, Saman Corporation je veux dire naka ngeen di def pour gérer affaire boobu yëpp d'autant d'autant plus que seen framework bi c'est euh, c'est open s amul paiement amul dara mais naka ngeen def pour gérer charge boobu noonu yëpp. effectivement bon euh, comme li ma la waxoon rek c'est-à-dire affaire yi passion la d'abord maanaam passion ak benn sentiment de d'appartenance ak benn besoin également d'accomplissement maanaam euh, moo ko mën résumer mooy mooy bëgg vraiment def dara woon gars yi ne c'est pas que man rek maa ko def mais woon gars yi ne c'est possible te aussi benn moment ñun dañoo soxla yëgal baar bi yëgal baat bi mooy ñun bu ñuy defati informatique ñu bañ limiter ci informatique de consommation mais ñu nekk ci informatique de production. merci ñu xool problème mooy suñu problématique en local. mais jéem a créer yoo xam ne day problème yooyu mais pas en fait gars yi créer benn framework wala benn modèle nga ñëw di utiliser rek ba pare nag li ngay kii ñoom dañuy privilégié lan la mën a résoudre ce qui fait que ñoom te ñoom lu li mën a résoudre ça dépend de leur environnement wala peut-être de leur marché. et plus avec le marché du travail même alors que ñun am nañu yeneen problématique en fait quoi gis naa ko podcast bi nga bi bi euh, bi gars di système de drone. agriculture santé. Mm-hmm. mais en fait ñun loolu lañ soxla. exactement voilà donc euh, tu euh, investissement bi nag au début vraiment comme je le dis ah gars yi ma accompagné yëpp ba ñi may présentement franchement ils l'ont fait sans retour. man également je le parce que dama leen di présenter philosophie bi philosophie bi lan ñëw la benn affaire c'est pas pour nous vanter mais pour woon gars yi ne c'est possible une fois ñu def ko man je pense que mental africain dès que gisee noir def rek moom dafay def. mën na ko sax mais peut-être moom moo créé limite boobu ba pare aussi plus souvent dañu naan cher cher cher dara cherul. tout dépend cest à commencer benn business booy commencer benn affaire a def ça c'est sûr plus il avance plus day mel ni benn ouverture porte buy buy buy tijjeeku di gën di yaatu. di gën a yaatu day am vision. di xam nan laay def di problème bi mais démarrer il faut démarrer. tant que démarruñu innovation bi donc euh, au début c'était ça on était quatre euh, quatre ak ak ak muy cinq ñuy sox. aussi ñaari designer nag du ñu aider parce que affaire dafa laaj design dafa laaj aussi un communique euh, benn communication mooy euh, benn am ak euh, Ousmane Ali Thiam sama benn étudiant bu Simplon donc ñooñu aussi design vraiment ñu ngi jàpp ci di liggéey di envoyer je t'assure dañuy liggéey internet ba vingt deux heures ba trois heures du matin buñ fay ok duñ fay kenn donc euh, loolu euh, passion la euh, donc au début vraiment comité de maintenance beeg yëpp et cetera léegi après aussi y' a benn effort bu may def de temps en temps aussi seen seen côté mooy formation bi partage parce que loolu tamit ñoom dañ koy soxla pour mën a évoluer ku ciy liggéey aussi boobu la mën naa la donc ñoom soxla donc mais engagement boobu daal lañ amoon au début. bi nañ revenir encore une fois comme ni nga ko waxee mooy question yi. la suite mais mais alors mais. Euh, je pense que ni tey war ngeen mën a est-ce que fa am na foo xam ne ni foofu ngeen bëgg yegg tey tu vois parce que gis nañ ne tey entreprise yu mag yi nekk ci àdduna bi yëpp man Microsoft ak yu meneen mag yëpp tu vois parce que man euh, damay wax à chaque fois que ne euh, àdduna doo tuuti bët quoi c'est-à-dire da ngay xool fu sori. alors boo xoolee fu sori nag même bu fekkee ne da ngay accomplir sax mun nga accomplir moitié bi wala demee noonu quoi alors tey euh, war ngeen bëgg atteindre benn niveau bu am doole ci euh, waxuma sax saamaana investir mais ci yeneen projet ak yeneen yu gën a ngand mais pour loolu euh, lan lan lan ngeen gën a soxla exactement da ngeen su communauté bi ngeen gën a soxla pour ñu utiliser framework bi wala ay investissement wala lan ngeen gën a soxla pour atteindre seen objectif yu gën a kawe. kawe je pense que li nga wax yëpp la mm-hmm. on a besoin communauté. Mm-hmm. on a besoin Donc, on a besoin de, part de marché, on a de reconnaissance. mais ñun à notre niveau également dañu commencé liggéey cest dañu jël framework bi créé ci benn application bu ñu woowee digital school. Ah, donc digital digital school. voilà c'est-à-dire Samant digital school point point point com. Euh, application boobu li ñu ciy def mooy euh, dañuy créer benn système de gestion scolaire. Okay. comme ñun on est dans l'éducation donc ñu créé application boo xam ne day gérer depuis crèche. au niveau supérieur LMS. développé nañ partout aussi l'idée c'est quoi c'est de mettre à la disposition également des écoles au Sénégal c'est-à-dire dañ leen koy louer donc non seulement ñun dañu rapporter des revenus mais en même temps également dañ sentiment de d'accomplissement parce que am na au moins benn touche bu ñu apporter à l'éducation l'éducation sénégalaise mooy aider les écoles à se digitaliser à accélérer la productivité. donc voilà donc projet la donc trois niveaux la premier bi développé nañ ko yëpp ba mu taxaw ñu ngi ci test yi deuxième bi commencé à troisième également donc euh, trois la mooy euh, élémentaire parce que ñoom seen système bépp yëpp benn la crèche ba élémentaire seen yëpp système benn ay classe maître la deuxième bi euh, moyen secondaire la moom la ñu woowee deuxième niveau troisième LMS la mooy c'est un système de e-learning et cetera enseignement à distance donc évaluation à distance donc niveau supérieur quoi donc daal day yëpp loolu projet la boo xam dañ koy développer ak application bi au ak framework au loo xam ne mhm. et aussi euh, y a Saman Corporation a créé après. ok ñu démarré. Mhm. y avait pas Saman Corporation y avait juste Saman MVC. ok donc donc Saman Corporation après la doole ñëw. après doole ñëw c'est-à-dire pour chercher des financements. pour avoir des développeurs qui sont en temps plein à Saman. Euh, a vraiment des développeurs. le site est disponible samancorporation.com mais après la ñëw léegi site boobu aussi on veut également euh, vraiment euh, participer à vraiment au recrutement des jeunes à jox opportunités et pour ñu développer des choses voilà donc euh, on a mis en place ça a des projets c'est-à-dire am na projet yu développer am nañu marché yu ñuy gagné aussi donc on les développe yoo xam ne laaj na PHP développe PHP loo xam ne laaj na aussi benn technologie def ko en technologie mais yëpp aussi day soutenir avec projet Saman bi pour ñun ñu mën a mën a dem parce que aussi encore une fois gratuité mënut a continuer. il faut nga benn modèle économique boo xam ne. Mm. da ngay am benn modèle économique boo xam mooy soutenir sa activité. te loolu il faut nga benn produit boo xam ne ci gratuit bi nga def. ci ngay produire ñi ko soxla mm. ñoo jënd produit boobu. comme ni ma koy waxee nag à fois bu ñuy waajee jeexal émission bi mooy que ne alors ñun suñu vocation fii du euh, jàngale exactement technologie bi mais dañuy ubbi xel nit ñu ci li existé c'est-à-dire ñu wax leen lan moo am parce que c'est sûr que Euh, déjà def enseignement à distance c'est très compliqué euh, mu ngi am ay preuves sax tu vois mais présentiel bi aussi am na solo donc ma ni ma mën a waxee mooy que ne tey ñun lépp li ñuy wax ci podcast bi tey dañuy ubbi bët yi rek tu ubbi bët yi pour que nit ñi gis ne am na benn potentialité bu fi nekk am na lu fi nekk fii ci Sénégal après nag euh, nit ki mooy am volonté dem dugg ci site bi Saman MVC wala yeneen ak yeneen wala yi xaral académie ak yu demee noonu xool site bi. jëfandikoo ko récupérer xam-xam bi ci nekk jëfandikoo ko ci sa àdduna ci sa vie de tous les jours wala pour faire avancer la science donc ñun loolu moo nekk vocation wu euh, tey euh, podcast bi nii quoi et li tax ñu def ko en wolof aussi c'est pour que ki nekk au fin fond du Sénégal sax dina xam lu xew c'est-à-dire du out tey da toog ci benn jotaay di waxtaan ak ay nit di wax ay développeur wala genre da ngay dégg lan mooy développeur tu que tey nii ñëpp war xam suñu métier mooy lan parce que problème yu bari ñoo koy régler muy ci yi muy ci usines yi ci école yi ak yu bëri tey euh, nit ñi soxla nañu donc war nañ mën a faire valoir suñu métier euh, nit ñi xam exactement mooy lan loolu moo tax ñu koy jaarale ci langue wolof. alors monsieur Seck euh, ñu ngi dem ci jeex jeexitalu émission bi lan nga mën a wax bépp développeur ak communauté bi ak entreprise yi nekk au Sénégal par rapport ak sa projet bi nga am ni très donc pour développeur bi déjà man dama lay jaajëfal parce que vraiment am nañ benn benn benn benn serveur Discord. vraiment yi en ligne que te man gis ci euh, franchement communauté sénégalaise bi c'est extraordinaire. Mhm. am na benn Discord Galsen Dev yeneen Discord Xarala et donc lay ajouter nga commune boo déggee suñu Discord vraiment on est plus de cent yëpp ay ay sénégalais ay africains et cetera ñoo ci bëri. donc loolu déjà c'est quelque chose de très motivant à notre niveau lu posté am dañuy commenter donc ça c'est très motivant loolu mooy côté développeur yi les jeunes également je les pousse à c'est-à-dire euh, c'est pas à être des utilisateurs mais venez voir nous ce qu'on a fait découvrir xam leen li def brique yi lan bu leen mënee la même chose c'est comme ce que Cheikh Anta Diop avait dit. Mhm. Euh, plus grand souhait c'est d'avoir des scientifiques même si c'est pour le contredire c'est ça donc man loolu a koy encore c'est-à-dire euh, l'idée c'est quoi bu ma amoon ñoo xam dañuy ñëw sax dama li nga def baaxul li la ñuy mu nekk ay Sénégalais nekk ay Africains dama neex trop ça c'est côté développeur entreprise yi. aussi il faut aussi ñu jéem a aussi vraiment xam ne euh, ici au niveau local il y a de l'expertise mm mais euh, il y a de grande envergure yoo xam boo jox développeur local également duñu mën a am expertise yuy war projet bu ñëwee mhm. mais def leen confiance aussi aussi les développeurs doivent également avoir sens de responsabilité mhm. jàng également éthique et la déontologie de leur métier bu ñu la joxee benn ak vraiment jàngal xam ndax ni mën nga koo def ci ban durée et cetera parce que c'est très important développement mën na quantifier projet mën a xam parce que loolu mooy discrédité suñu développeurs yi bu ñëwee yow doo xam xam mënoo évaluer prix mënoo évaluer timing et loolu dafa am solo trop suñu métier donc euh, loolu également bon c'est un rapport en fait bu may def ci entreprise yi ñoo xam ne aussi nous on a des produits on a du potentiel équipe très douée très qualifiés yi may travailler ils sont au nombre de onze jeunes yoo xam ne ñu ngi ko xamante prochaine ay développeurs ay designers ay cinéastes ay commerciaux donc technico ay gestionnaires yëpp ci biir en fait yëpp ay sénégalais lañ. ok macha allah entreprise donc et la communauté sénégalaise maintenant mooy ñi nga xam ne def informatique ak ñu ko bëgg def aussi xam leen ne booñ ci duggee am na ñoo xam ne vraiment ñu ngi fi comme genre Ibrahima mi nga xam ne référence la ñoom Ousseynou donc Daxala ñoom Walid Acosta ñoom donc ñun ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñu fi euh, voilà donc ñii lañ xamante quoi ñu wax yëpp. gisuma ci kenn. mais xam naa leen communique vraiment fréquemment juste pour la ne digital vraiment dafa gën ko passionnant. exactement te gën ko vraiment fi mu la yóbbu dafa dafa dafa kawe. dafa kawe donc. Euh, donc et je dis que ne je dis que terminer que xam-xam. moo mun a dajale ay franchement ci dëgg quoi cest à xam-xam mooy faire avancer dëkk te euh, xam-xam rek moo waral li yëpp quoi donc nañ sàkku xam-xam nañ gën a ñoŋal suñu xel yi nañ gën a fexe ba suñu xel yi ñaw pour que ñu gën a am xam-xam parce que ci loolu lañ toll tey jii nii ay boo xoolee Afrique tey jii nii euh, voilà challenge bi xam-xam la waaye il faut que am xam-xam pour mun a yóbbu suñu bopp parce que suñu amul xam-xam rek nit ñi dañuy yóbbaale te suñu yóbbaalee ba ci kaw rek dañuy nekk dañuy nekk dans le vide parce que dañuy nekk foofu di errer alors suñu yóbbaale nag même bu ñu yóbbaale ñu yóbbaale ñu ak xam-xam suñu yeggee dinañ mën a euh, prendre soin suñ bopp décider suñu bopp defal suñu bopp yu bëri quoi donc xam-xam mooy am solo alors euh, monsieur Seck yow tey fan lañ la euh, parce que xam naa ne ñi tey je pense que épisode bi ma def tey moo gën a gudd ci épisode yi ma def yëpp tu vois alors parce que thème bi dafa passionnant te parce que li nga créé aussi yow ak sa équipe dafa am solo trop te moom la ñuy xaar ci Sénégal yi yëpp ci développeurs yi informaticiens médecine moo xam domaine yëpp ñëpp war a jóg di créer ay affaire bañ a toog di xaar ñu leen di ci entreprise yi ñu liggéey liggéey rek liggéey am na solo ci entreprise yi mais aussi nga utiliser sa xel pour créer ay affaire pour faire avancer la science aussi am na solo alors fan la la nit ñi mën a fekk tey ah, ci réseaux sociaux yi voilà pour gën a mën a imprégné wu ci li ngay def pour gën a mën a waxtaan ak yow ci Facebook Twitter Instagram ak yu a woo mooy chaîne seen vidéo mm-hmm. même bu dul PHP dina la former ci langage yu bari bari même gestion de portefeuille wax nii donc dama ko fay def donc ça vraiment c'est plus développeur maa ngi fa boo leen ñëwee mën ngeen commenter vidéo yi mën ngeen télécharger cours yëpp nga fa très détails yi et cetera euh, donc chaîne boo xam ne aussi dama créé woon depuis 2014 moom aussi parce que moom projet framework bi ñoo ànd donc euh, franchement c'est donné ma contribution toujours parce que encore une fois maa ngi répété que li ma gën a jox inspiration mooy chaîne YouTube bu ma demoon toujours anglais mais naan mais ana français yi ana sénégalais yi léegi rek la français yi mais avant c'était c'était anglais et même anglais français canadien. français canadien ça c'est sûr mais man nekk blocage yu bëri en fait quoi donc euh, euh, ça c'est également je suis vraiment actif quand même je suis très digital je suis partout je suis très actif dans Facebook am aussi site web ça man pour am site web ça man point com saman MPC également point sn parce que boobu moom il faut domaine sn donc saman point sn donc euh, dans tout également je suis également dans dans Twitter Ngor Seck man foo dem moom. yaa ngi foofu alors alors sa sa sa lien yooyu yëpp dañu koy envoyer par mail comme ça ñu inclure ko ci description podcast bi comme ça nit ñi bu ñu koy déglu dinañ mën a cliquer directement euh, rejoindre la ci réseaux sociaux yi ak ci seen site web bi pour gën a mën a am plus d'information ci li ngay def alors je pense que émission bi déjà gudd na ba pare te xam naa ne damay bañ nit ñi am difficulté pour pour déglu ko euh, normalement tu vois alors lan moo nekk rapidement ce mot de la fin. d'accord mot de la fin c'est euh, comme ñëpp ah vraiment remercier la yow déjà mm-hmm. remercier ma famille remercier entreprise média yëpp parce que lii yëpp ñoom la. ok remercier également entreprise présentement en tant que formateur nga xam ne vraiment on m'a donné la confiance totale mooy Simplon. ok donc euh, franchement. également les Sénégalais les écoles de formation ma jaaxle yëpp aussi mm. en tant formateur donc euh, et mes étudiants aussi ah leen parce que ñoom moom franchement ñooy. ñoo ñoom ñooy ma raison d'être quoi. macha allah macha allah c'est post yi may Facebook. y a que des étudiants qui commentent. également les donc euh, franchement également yéen aussi bu amul seen fay. effort bi ngeen def nii. franchement merci alors merci beaucoup ah ñun ñoo lay remercier bu baax parce que déjà euh, guddi na nit ñëpp a ngi nelaw mais comme li may wax rek ñun ñoo ngi autour de passion bi nga xam li nga xam te moom moo ñu neex moom lañ bëgg te bëgg faire avancer la science ah, ñu ngi lay remercier ci li nga accepté ñëw ci invitation tey bi et di wax nit ñu aussi que ne euh, am na am na yeneen sujet yu war a ñëw ci yeneen euh, ci yeneen semaine tu yu am solo ah, du ñàkk ne monsieur Ngor Seck bi dinañ ko invité waat pour mu ñëwaat waxaat ak ñun ci yeneen domaine sax peut Euh, donc ñu ngi leen di jox dox dox dox dox daje ci beneen épisode beneen semaine avec euh, Wolof merci beaucoup allez ciao